Mame Makhtar Guèye bokk ci li nga xam ne mooy ONG Jamra tey nga ñëw ci tribunal bi ngi déposé plainte ñi euh, ngi rek scandale bi nga xam ne moo yëkkati Sénégal ci Miss Sénégal 2020 bi est-ce que mën nga dellu si waat tey ci plainte bi xam nga dafa am sa beneen naataango bu am baat bu siiw boo xam ne yàgg nañ di ko dégg ci média yi mu ne ku artuwul di nga àtte ko ca baar ma dolli ci ne euh, magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko moo gën ndax boo xamee te waxoo amaloo kenn njariñ yàlla dogal na Jamra waxoon na et je prends à témoin Ablaye Ndiaga Sylla la est un thème un doyen de la presse je prends à témoin un autre doyen de la presse qui est à la retraite maintenant yàlla na yàlla guddal fanam le doyen Boubacar Diop fekk nañu jàmmarloo bi ñu fi doon jàmmarloo en 1998 ak ki nga xam ne moo sos Miss Sénégal ak Miss Jongoma par pudeur morale mën nañu leb turam parce que génn na àdduna léegi waaye dañ ko seeti woon amicalement ma ànd ak Latif pour alerte ne ko ah yow xaritu Jamra nga en ce sens que chaque 26 juin bu ñuy célébrer la journée mondiale de lutte contre la drop décrétée par l'Organisation de Nations Unies journée mondiale de sensibilisation contre la drogue di neexal xale yi ràññeeku ci wàllu bind ay taalif ñu di ko defee fii ci Sorano sous la présidence du jury dirigé par euh, ndem si yàlla si Jo alors ñu ne ko yow yaa ñu daan lijjantil toujours une équipe de télévision pour la couverture boobu télé yëpp amul woon ñu ne kon suñu xarit nga ci kaw mottali kóllëre moo tax ñu seet si la ñu ne ko sa staff bi lay gérer Miss Jongama ak Miss Sénégal une trentaine de personnes am ci ñaar yoo xam ne am nañ ay preuves yu wér ni c'est des rabatteurs ñu tudde leen dans le jargon des macro c'est-à-dire ñoo xam ne ñooy dox diggante candidate Miss yi ak ay kilifa di eh, leen jox si ay carte de visite ak diw daf la soxla diw daf la xeme mag et cetera mu nekk ce que le code pénal appelle du proxénétisme nga xam ne mooy di xiirtal jigéen si di jaay boppam yow bi koy def loolu nga di ci am dara ñu wax ko ko nee ko boo bëggee firnde bi gën a leer xoolal édition daaw ak bu daaw jeeg Miss Sénégal ak Miss Jongama yaa ngeeg liste bi mu ne waaw ñu ne ko nag xoolal ngay woote kenn par kenn am na ci ñett ñoo xam ne nekkatuñu Sénégal parce que dañ leen dugal dans un réseau international de prostitution de luxe ñaar ñaa ngi établir dans les Émirats arabes keneen kaa nga Belgique xaw ma Canada. te si ay miss lañu woon léegi ñu ngi ci prostitution de luxe bi kenn ki bu yàggul la tabaxal ay way juróom eh, benn R plus 1 yóbbu papa Makka ak yaay Makka ci xaalisu prostitution. ñu ne ko nag ñu bëggoon nga jog ci ndax boo ci jógul ñun dinañ ci jog ndax du ñu nangu kuy détruire nos sœurs nos nos jarbaat ak di gàkkal le patrimoine culturel sénégalais mais ñu yaakaaroon ne xëy na dana am un esprit assez compréhensif waaye il a pris ça très mal affaire bi def coow le lendemain presse bi yëg ko alors tout la presse s'était liguée contre nous daal di diaboliser Jamra sauf Ablaye Ndiaga Sylla et Boubacar Diop alors qui aurait pu imaginer que en 2021 la naroon a dëggal ak euh, confirmer la légitimité de ce combat dana jógee non pas euh, ci benn responsable Jamra waaye d'une actrice du système de cette mafia de détournement de mi Sénégal mu di celle qui a été couronnée lors de l'édition 2020 en l'occurrence Ndeye Fatim Dione kenn saxalu ko suukar kenn wañaarul loxoom moo wax ci làmmiñu boppam pexe yi ñuy lal ba dugal leen dans ce système moo wax ci làmmiñu boppam euh, ndëgg sërëx yi ñu leen jaarale ba bi sacre bi ak cérémonie bi jeexee ñu yobbu leen ci ab hôtel soi-disant pour ñu tenir compagnie à des autorités lan mooy ndeyu tenir compagnie à des autorités ci hôtel ci cérémonie boo xam ne jeex na ku ci nekk war a am la ngay am boo leen di may paas nga ma leen paas ñu ñibbi mu daal di joxe des détails très inquiétants ba am na ci ay miss sax ñu naan waaw dem nañu tenir rejoindre dans leur chambre certaines autorités moom comme que moo bañoon nag ñu xaw ko cee xas xaw ko cee xalab ba mujj gi la dal ñëpp xam nañ ko mu xaw a mel ni xëy na dafa dem ba àndutul ak sagoom parce que am na sax yenn témoignage de miss yu wax ne ña doon jëflanteeg ñoom dañuy jëfandikoo ay pion donc des toxicomanes kenn xamul nag ndax moom dañ ko drogué egg ci kawam. en tout cas jëlee na ci ëmb boo xam ne ba fii ñu toog xale bi am na juróomi weer kenn xamul bàyyam alors kon nag boo gisee ñun Jamra ñu félicité Ndeye euh, euh, Fatim Dione c'est parce que dafa def loolu ko di barma di wax tëj buy bi maanaam depuis ba mu fase fitam def de grave révélation dafa may fit yeneen miis ya nga xam ne ñu ngi neewoon xóom ci lëndëm gi wéetoo ak seen xar ak seen kersa daf leen may fit ñoom itam ñu daal di génn wax alors ba ñu waxee nag ñëpp a taf seen gémmiñ ndax Miss Saint-Louis wax na Miss Matam wax na miis Louga wax na Miss Thiès Miss Kolda am na ci bi ci gën a scandale benn Miss bu wax ne ëmb bi mu am jële ko ci mbiru Miss yi te am ci ñaari xeet ñaari ñaari seex benn ministre de la République moo ko biiral waa ngeen bëgg nag affaire bi ñu taxam patane ko bàyyi ko ni kenn du ko bàyyi noonu parce que ces ministres la tooñ nañu Sénégal parce que la fonction de ministre est une institution amuñu droit di ko dugal dans la perversion alors loola waral nag ñun ñu demander ñu jël li ñu yoon may en tant que citoyen nous sentant agressés et offensés dans nos valeurs des valeur républicaines euh, qui nous commune à tous ñu daal di euh, saisir procureur d'une plainte waaye nag li waral plainte bi mooy ka nga xam ne mooy présidente comité euh, euh, d'organisation Miss Sénégal ak nattu bii dal Miss yi te ki ci gën a mettile di euh, Fatim Dione la ñu doon séntu ci moom mooy kay mu yëkkati ay kaddu de réconfort de soutien moral defal leen seeti seen mbokk bokk ak ñoom naqar wi waaye amoo loo def di keex-keex yi toog ci kanamu média yi naan eh ku ñu ku ñu ëmbal day yow la neex loolu moom la code pénal wax l'apologie du viol maanaam mbirum siif nga xam ne yoon rëbb na ko yow nga di ko kañ ak di ko banaliser ak di ko ñàkkal fayda alors bu ko defee nag plainte bi ça porte sur trois chefs d'inculpation jox nañ ko procureur léegi fa laa jógee copie plainte baa ngi nii euh, recevoir nañ ko tey le jeudi vingt cinq à treize heures plainte bi ça porte sur l'apologie du viol. Ça porte sur l'association de malfaiteurs et sur la complicité passive de proxénétisme. Ah li waral affaire proxénétisme c'est parce que dañu am des éléments attestant que affaire bi dafa am ay ramifications extérieures au Sénégal euh, de sorte que ah, nettali nañu procureur ci plante bi plainte ba Jamra déposé woon en août 2001 ci benn casting bu ñu doon def pour un défilé de mode bu waroon am en Libye cent mannequins yi ñu nax leen ne leen da ngeen di ñëw ñu yóbbu leen Libye sous prétexte de la célébration du 32e anniversaire de la révolution libyenne ñu ngi ko jaare la woon à travers deux femmes qui se prétendent promotrices culturelles mu di Leila Kambel euh, ak Nancy Kambel ñoom ñoo ñëw daal di nax benn styliste de mode bu siiw di ku baax ku yiw kenn mësu ko dégg ci lu ñaaw muy soxna euh, Oumou Sy nee ko da nga ñuy defal casting cent filles la ñu soxla voilà les critères moom liggéeyam la parce qu'elle travaille depuis des années avec des mannequins mu defal ko casting ndekete nag ndaw si lan nekk ci suuf waxu ko alors ba passeport yeeg yëpp pare ñu réserver vol bi pour yóbbu leen Libye Jamra yëg au niveau international suñu ay euh, ay ay ay camarades informé ñu ñun ñu daal di informer le général Mamadou Niang ministre de l'intérieur ñu arrêté avion bi wàcc jigéen ñëpp et après Cheikh Tidiane Gadio ci boppam ministre des affaires étrangères il avait les mêmes informations que nous nee effectivement dañ leen naroon copté enrôle leen dans un réseau de proxénétisme international dans un réseau de prostitution de luxe alors noonu la état bi procédé à l'arrestation de Oumoussi et à l'arrestation des sœurs Campbell muy Layla ak Nancy Campbell waaye ñu toog tuuti comme que Layla ak Nancy Campbell dañu amee double nationalité c'est des franco-sénégalaises ñu libéré leen bay fa Oumoussi Jamra def point de presse ne c'est illégal parce que Oumoussi a été manipulé et utilisé elle est victime de sa naïveté et de sa bonne foi soit ñu tëj ñëpp wala ñu bàyyi ñëpp yàlla dogal na nag ñu teg ci deux mois mois d'octobre ñu libéré ko kon noonu ñu defee woon plainte pour dénoncer un réseau international bu am impact am ñu mu lor au plan national noonu la ñu déposé waate plainte wax procureur na impliqué Interpol comme niñ ko defee woon en 2001 ci affaire man mannequin yi pour mën a cerner les ramifications internationales alors kon nag euh, loolu moo doon suñu démarche tey léegi nag ñun jàpp jàpp nañu ne c'est il est du devoir moral de l'État de protéger les jeunes particulièrement les femmes ak ni àdduna bi yàqoo moo tax nag en attendant que justice euh, traité affaire bi parce que ndaw si mu ngi jéem a ouvrir un contre-feu en portant plainte moom def ñu arrangé parce que boo porté plainte mouvement féministe yi porte euh, indi cent vingt plaintes ban conséquence lay am mooy le code pénal fait obligation au procureur parce que y a des risques de trouble à l'ordre public de procéder à ce que l'on appelle l'ouverture d'une information judiciaire kon plainte bi ndaw si def mu ngi defee ne moo ci ne waaye daf ñu arrangé procureur dana ubbi information judiciaire entendre les miss qui ont fait des aveux mais dans le réseaux sociaux léegi dañuy toog seen làmmiñ ak nopp procureur kon mbir mi day tax mu gën a gaaw a leer alors je termine en disant que l'État a le devoir de protéger la jeunesse particulièrement les femmes moo tax na pendant que justice a ngi def liggéeyam la mesure la plus urgente te ñu ngi koy répété fii mooy état bi na jël la mesure conservatoire consistant à retirer la licence bi ñu jox ndaw si parce que ne le mérite pas voilà jërëjëf